ngi lay nuyu euh, bàyyi la rek nga euh, nuyu ak ñi nga xam ni euh, jamono ji ñu ngi bàyyi xel fii ci Sunugal 24. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Baara sëñ Mamadou Lamine ñu ngi lay nuyu. di nuyu waa Sunugal 24 yëpp. xëccal sa micro bi di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. Mm-hmm. ak di ñu déglu fu ñu toll. di ñaanal mm, at mi ñu dugg. Mm-hmm. Mm-hmm. di ci ñaan yàlla suñu borom def mu doon atum jàmm. atum naataange. yàlla suñu borom euh, defal ñu ci fanu gudd ak wér-gu-yaram. Euh, muy at mi nga xam ni mooy atum bisu tam bi ñu génn mooy yow asura bi. Mm-hmm. di bis bu am solo ci jullit ñi. Mm-hmm. ngi ci sant yàlla bu baax mi nga xam ni moo ñu dimbale may nu ba ñu fekkewaat ko ci euh, ak jàmm. Mm-hmm. di ñaanal ñi nga xam ne yàlla suñ borom dogal na fekki wuñ ko fekke woon nañ ko daaw te fekki wuñ ko ren te yàlla suñ borom moom leen. ñaanal leen yàlla suñu borom yërëm leen xaare leen àjjana. di ci ñaanalaale suma waajur wi jigéen soxna Fatou Gueye. Mhm. muy suma waajuru jigéen di ko ñaanalaale suñu borom ak bépp jullit bu mu fekk la koy jaal bu baax a baax. Ah. parce que la fois passée kii bi mu koy wax. jub tayif. wallaay wallaay ndeysaan loolu la yàlla dogal. Mhm. di ñaanal nag euh, ñëm fekk ñëpp ak ña ko fekk yërmande yàlla ak njëgalu yàlla. yow noonu wax dëgg yàlla mu ko sore suñu ñun lool suñu waajur euh, mais addina noonu la demee. Mhm. yàlla daf ne xalaqal mawta wal xayaata mm-hmm. li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan mm-hmm. dama bind dee door a dund dund mm-hmm. li yabluwakum ngir mu nattal leen ayyukum kenn ku ne kan ci yéen ahsanu amalan moo gën a rafet ay jëf li tax yàlla suñu borom war ñu dund faat ñu ëllëg bu ñu delluwaat wuy ji suñu borom def bu ëllëgee dañuy xool ci ñun kan moo gënoon a rafet ay jëf ci àddina mu ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan kon nag yàlla nañu yàlla defal ñuy def jëf yu rafet jëf yu baax di ñaanal tam ñam fa fekk ñëpp yërmande yàlla ak jégalu yàlla mm-hmm. nga xam ne tam bis bis bi del si muy tamxarit bi mm-hmm. fekk na leen ci eh, yàlla dogal ñu yàlla dogal na leen ñu ñu ñu ñu ji ñu ñu nekk ci ay jafe-jafe mm-hmm. ci wér-gi-yaram nekk ci hôpital yi yàlla suñu boroom delloo leen seen sago maanaam may leen wér-gi-yaram bañ dellu siwaat ci njaboot gi di ñaanal tam suñu mbokk ya nga xam ne maa ngi leen bàyyi fële ca euh, prison bi muy rëbës di cent mètres maa ngi leen waaw maa ngi leen di ñaanal ñoom itam tolof tolof yeeg yooyu nekk yàlla leen yàlla suñu borom génne ca yooyu ñu nekk mm-hmm. te delloo si leen waat ci ñu génnee ñu bañ cee dellu waaw bu ñu dee ñu bañ cee delluwaat te ñi nga xam ne njuumte leen fa dugalit ñu xam ne nattub suñu borom la te nit ki lu yàlla dogal ci àddinaam rek il faut mu dal ko di masawoon ak seen mbokk yi nga xam ne itam toujours ñu ngi ci jaaxle ndax euh, am sa doom wala sa borom kër wala sa jabar wala sa sa sa sa papa xëy nekk ci ci ay ay loxo détention ñi nga xam ne ñu ngi fa am ay huit ans neuf ans dix ans yooyu yëpp métti na. wallaay xoolal xale bi ci gaañu barki démb rek. mosoon na tëdd juróomi at. dem ba un an trois mois dese. mu yàlla dogal mu mu génnaat waaw yooyu yëpp nag dafa bari ñu koy ñaal ñu ngi jàll ay mbokkam nag di xam ne dogal suñu borom daf ne. ay na ma maa takunu yudrikkumul mawt fu ngeen mën a dem dee dinaa leen fekk. dee moom amul fii laa nekk fa laa nekk fu la mu la fekk rek fa la ko yàlla dogale. Mhm. di ñaanal di ñaanal waaw ma wërsëg a yem. <laughs> di ñaanal ay mbokkam yàlla suñu borom may leen xolam muñ te yéen ko yeexee ñu. te di xamal rek ne natt bi saa bu jeexee rek day jeex. di nag euh, sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. ndax ñun bis ni tey. bisub sant la war a doon ci ñun. Mm, ndax fi ñu fekkoon tey mu fekk ñu fi nga xam ne lépp yàlla la. Mhm, nëgëri daaw ku ne danañ toog. ba Sénégal nekk ci jàmm ji. Mhm. dal gi. lu mhm. bari suñu leen ko waxee dañ naan loolu mënul nekk. waaye nag xarit ba ca suba ga yama woon ak ajjuma ci la ñu tegoon loxo. Euh, voilà ci la ñu tegoon loxo Ousmane Sonko gannaaw ba mu jugee euh, ajjuma gëm doon julli. kon nga xam ne kon tey boo xooloon heure bii nii daaw réew maa ngi ci fitna. mu ngi ci fitna ju métti fitna joo xam ni nii mënee su ko sax imaam mënee su ko expliquer kenn mënul baax ban situation lañ nekkoon daaw mais suñu borom noonu lay tëddee àddina lépp loo li ku li li ku lépp loo gis rek dafa am dat dat bu nekk rek bu si jotee suñu borom lam ci bëgg da koy def. moo tax nañuy sant yàlla bu baax te dellu si ci yàlla. ci yàlla dimbali itam réew mi euh, jàmm ji. ak euh, lii ñu gis ci réew mi yàlla nag continuer li fi amoon daal yàlla na fi jógetu bu mu amati mukk ci àddina te it gëm naa ne euh, dina ci jàmm am daal ñu jàmm kontaan continuer alhamdulilah <laughs> jàmm ndax ndax ndax jàmm suñu euh, suñu wax ne jàmm mu suñu tubaab daan wax ne jàmm moo gën fii gën gën fañ jëm mm-hmm. te lépp loo wut te amoo ko amoo jàmm bis boo ko jotee da nga ko jaay wuti jàmm mm-hmm. kon nag bu ñu amee jàmm ji réew mi am jàmm ñuy liggéey te it wax dëgg yàlla xam nañu ku ci nekk xam ne ne jafe-jafe yaa ngi wàññeeku mm-hmm. ndax yaakaar a nga am mm-hmm. mais nag loolu moo taxoon ñuy xeex ñun mm-hmm. boo gisee depuis de mil 2014 2016 2021 ñuy continuer lii lañ bëggoon Sénégal jaar ci développé am jàmm Sénégal doon Sénégal naataange lañ ko xamee woon voleur yi ñu ko xamee woon ak jàmm yi ñu fa xamee woon Sénégal nga xam ne ku mës jóge ci àddina fa mës a dégg da nga naan Sénégal réewum teranga la mujj Sénégal dem ba mujj boo génnee gis ay policiers gendarmerie fu nekk gaare nga yaakaar ne dëkk ci guerre la ñu nekk au ñëpp di ñu xool di ñu bàyyi waaw waaw yooyu nag dafa doon loo xam ne euh, nañ ñaan yàlla bu mu teel siwaat ci am ci am ci réew mi te gëmmu mu amati fi mm-hmm, ndax euh, leçon la ñuy jox ci ñi fi ñëkk ci ñi fi nekk tey mm-hmm. li fi passé dana leen jox leçon di sant nag yàlla bu baax di gërëm ñëpp di wax kon ñu tàmbali waxtaan wi rek euh, wax dëgg yàllam da ngeen di samay nit mm-hmm. te gis liggéey bu am solo bi ngeen def Mm, yàlla dogal bi ma génnee ba léegi tey laa door a ñëwaat ci seen plateau yi te daanaa fi ñëw daan nañ tase man ak yow. Mhm. di leen sant di leen gërëm di ñeen yéen kilifa diine yi kilifa aada yàlla suñu borom may leen fanu gudd ak wér-gu-yaram bisimilah ñu tàmbali waxtaan bi. jërëjëf mi ngi noonu Serigne Ibrahima Gueye nay leer comme ni mu ko waxee rek euh, moom itam bokkoon ci ñenn ñi nga xam ni vraiment. Euh, daan na disponible trop ci jamono ya nga xam ni itam génn wax xawoon na jafe <laughs> parce que moment boobu <laughs> ñu daan nangu génn di wax quand euh, xawoon na néew tuuti. mais noonu euh, Ibrahima suñu Ibrahima dañ koy commencer ak le président Bassirou Diomaye Diakhar fay la fois passée génn na jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi. yow euh, dañ ci commencé rek d' abord ci ci forme bi moom d' abord président yow ban ban ban gis-gis nga am ci président Diomaye bi nga gis la fois passée ak président Diomaye bi nga xam ni euh, nekkoon na ci kaso bi génn ñu ni ko leng yaa ngi noonu am am doxalal. waaw xanaa sant rek di am mbégte lool ci. Euh, son excellence président Bassirou Diomaye jakaar fay mm-hmm. ci euh, yan bu mu yanu te xam ko te attan ko mm-hmm. yàlla dogal mu am li ñuy wax cent jours mu am téeméeri fan ci biñ ko joxee léegi yi ak léegi mm-hmm. àddina bépp apprécier ci leadership am ak ci dalam ak ci xam-xamam ak it ci doon nit ku loyauté mm-hmm. doon nit ki itam ko am écoute ci peuple am moom laa gis doon koo xam ne tam ku am regard na ci li fi xewoon ak liñ ko jox jële ko en toute responsabilité jàkkaarlook aw askanam woo presse nationale bi li ma ci gën a neex mooy def bi mu jàkkaarlook Sénégal yi mënoon na ne day taxay rek def discours français comme liy dem mais déedéet dafa xam ne Sénégal ñi nga xam ne ñoom lay waxal mooy sénégalais yi te it Euh, alquran de ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi man yàlla du ma yónni ab yónnent ci aw nit loolu mu wax ca làmmiñ wa ñuy wa ñuy waxee man loolu moom ma ci gën a frappé wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi man yàlla du ma yónni ab yónnent ci aw nit lu du mu wax ci làmmiñ wa ñuy laaxee. le fait que mu prioriser wolof bi. mu prioriser maanaam mu jël ko privilégié wolof bi ci li nga xam ne moo di français. bi nga xam ne mooy langue bi ëpp li Sénégal yi dégg te moom mu jël langue boobu wax ak sénégalais yi nga xam ne nii quatre-vingt pour cent yi xamuñu luy beneen langue bu olof wala wala wala dégguñu français boobu quatre-vingt-quinze pour cent yi olof la ñuy làkk loolu doon lu lu lu ñu delloosiwaat ci li taxoon ñuy xeex ndax ñun dañoo xam ne dañoo gëm ne américains yi du ñu du du du seen dëkk ñoo koy développé te anglais lañ koy lañ koy def seen langue lañ koy national lañ koy développé. Mm. ak seen lépp euh, chinois yi il paraît France gii nga xam ne moo moo moo coloniser Afrique ak coloniser ñu. Mhm. buy wax du wax laa anglais te première langue si est anglais. Mhm. mais doo anglais Macron ñi ngi jàkkaarloog français yi di leen làkk anglais. Mhm. te pourtant langue anglais mooy langue universelle. buy wax waa dëkkam lay waxal français lay wax. chinois bi il paraît arabe bi il paraît ñun nag ñu war taxaw jàkkaarloog askan wi day wax ak ñoom premier discours jàkkaarloog peuple sénégalais ak euh, journaliste di wax ak ñoom ci li mu fi jot a liggéey ak fi mu jëmooy réew mi ak li mu yoragum. Mm-hmm. wax ko ci langue olof ci Sénégal yëpp dégg ko dama dama ci am lu ma lu dama ko apprécier satisfaction total encore une mu xool ne euh, li li li ko journaliste laaj mm-hmm. ku ci nekk li nga ko laaj laaj bi nga ko laaj dem na ba jox ci sénégalais yi réponse boo xam ne. Mhm. ñoom sax laajaale wuñu ko. moom moom Pajiro ñu. ci tontu yi mu leen ci tontu yi mu leen tontu tontu yu mat tontu yu responsable tontu yoo xam ne ni Sénégal yi loolu lañ doon xaar mais xam nga loolu yépp bokk na ci euh, li tax Ousmane Sonko doon wax rek ma xam naa li tax ma tànn ko ci xam-xamam. Mhm. ci euh, dayoom. Mhm. ci responsabilité xam xam xam mooy kan. moo tax. bi biñ naan dañuy jël cinq candidats man automatiquement xam naa ne Bassirou lay tànn ndax man dama yàgg xam Bassirou Diomaye gis ko ci parti bi ni mu daan doxee ak plateau yi mu daan defe ni mu daan waxee ak liggéeyam ni mu fonk woon liggéeyam ak ni mu respecté woon combat bi mhm. ak euh, rigueur bi mu daan doxee. Mhm. bañ la ba mu ne cinq candidats laa jël man ci biir kaso bi la ma fekk ma ne xam naa Bassirou Diomaye lay doon. moom lay doon en parlant de ça parce que wax na ci digg ma ki nga xam ni mooy euh, Ousmane Sonko. Mhm. dem na sax ba ni euh, di xaw ma genre tooñ la fa def que nekkuñu woon xarit mais ginnaaw yi euh, la ko proposé ne ko nañu nekk xarit tey ñoom ñaar ci.